حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالزماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالزماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والسهور معا مثل العزيب والجن والغدوات kaanu ibaadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati kaanu ya'udduuna tarkal wirdi ma'a shibahin min alxalaali min asbaabi almusiibaati kaanu iza allaylu arqaa sitra saa halakin xaamu ziraa'an li ihyaa'i dujunaati باعوا فضولا بسكر الله قالخهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشارات فحيثما برست ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاته ينسون ليلى وسعدا في قيامهم مستانسين بأذكار وآياته حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هند ولبنى في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun biha yu'azzazu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juu'un tawiilun ba'dahu zaharun wa uzlatun an shuyuuxin bil ishaaraati qawmun tariiqatuhum takfil muriida adan minal mariidi wa anwaa'il guruuraati طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأزول التي تنفروناته من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حسن دواما بالقناعات doon kenn ci Serigne Touba loolu lañ jëkk a wax si yaatu di wax xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax lii de ku ne xam na ne metti na waaye nag moom dafa jëlee lépp jox ko Serigne Touba ndax mooma nit ci gimmuñ boppam moo toog mu ni ma li mu doon ñaan séeblaat da koo ñaan ni ko lu may liggéey rek na doon Serigne Touba tax bi mu jàngee ba yeggalum jàng nañ ko jëkk a fay da koy indil séeblaat mu def ko ba yàgg mu xam ni nee na ñu koy liggéeyal muy indilaat xalif Serigne Touba du ndam ci moom lii ndam ci moom jël léppam rek jox Serigne Touba te it boo ñëwee ci bisam bi nga xam ni daa jébbal Serigne Touba léppam kon ku ñëw ànd ak aatu ci lii naa la seereen taxawoo aatu sëñ Tuubaa nga taxaw ndax daa jëlee lépp jox ko sëñ Tuubaa te it ñu doon ay bokkam sëñ Moussa Thielé ak sëñ Ousmane Awa ñoo bokk benn waajur maanaam sëñ Ousmane sëñ Moussa euh, sëñ Ousmane di waajuru sëñ at muy sëñ Ousmane Awa Sarr di soxna soxna ka ñu koy wax soxna ka bokk ci waa Ngaay kon kooku bu fi jógee sunu xol tooy na moom tooy goo xam si mën nu ko wax waaye lu nu ci dalal rek ak diis rek mbooloo mi tax na koy am ndax na la seere ni kenn ku ci nekk cër ba nga ci am rek jël nga jëf ji moom kenn képp koo am si da ngaa yaakaar Serigne di yëngu ci barab war ngaa bàyyi xel bis bi war ngaa bàyyi xel bis bu suñu aatu bi itam ndax bàyyi gi ñaar la yàgg-yàgg di nga ñëw fii waaye ndax boo ñëwee da am lu mel nii suñu aatu daa jël lépp jox ko Serigne Touba amul tànki ginnaaw da daan wax naan Serigne bi amul tànki ginnaaw tànki kanam la ba tax na li nga xamante si def na ko ci Serigne Touba muy liggéey bu liggéey Serigne Touba da ci ànd ak bokk yi nga xamante si ñoom la àndal muy waa Hizbut Tarqiyyah tey ñu jël kaddu yooyu di ko teg ci sëñ Yuusu mi nga xamante si foo ko mos a gis si yaatu gis nga sëñ Yuusu ak sëñ Jilim wa ñoom ak sëñ Aliou ñoom ñëpp na la seere ni sëñ aatu wàcc na waaye ñoom it wàcc nañ la tax man la wàcc nañ mooy dañoo jiital sëñ aatu ba def fakkastalu ko kon daal ne lañ seere aatu lim doon ànd ànd ak Sëriñ Tuubaa daa ànd na ki bokkam téye leen kon nag suñu xol seet na guy nag métti na nag boo la gisee suñu xol seet na mbooloo mi ndax na la seer ne fenn fu ne dëkkandoo yi bokk yi ak fu mu mën di ku xam Sëñ Aatu wala nga dégg Sëñ Aatu ñëw nga teew si bi bisam bi li ko waral dara wërlu ko lu Sëñ Tuubaa kon ñu ngi leen di sant seen liggéey rafet na ñoo ngi ñaanal Sëñ Aatu yal na ko saabaru xaar te teg ci njaboot gi loxo ak ñi mu doon àndal ba lépp luñ bëgg ci yoon ñu mën ko di wax xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di sof ci suñu kilifa gi bàyyi muy Sëriñ Mbàkke Ka sunu mag la Sëñ Aatu sunu doomu bàjjan la sunu waajur mooy nijaayam ah, di wax ni lii daal seet na sunu xol ba amoon na lu métti lool waaye mbooloo wi seet na sunu xol ndax lii ku ne xam ni jëf rek mu am solo ñu ngi ñaan yàlla na ko Serigne Touba mi nga xamante ni si moom doon liggéeyal feeñu fee mu nekk tey jii wax dëgg yàlla suñu aatu nangoo na liggéey Serigne Touba ñu bari loolu la ñu xam ci moom. waaye ñun ñi ay mbokki deretam li ñu xam ci moom mooy jëf sëriñ Touba ak jëf ci ay mbokkam ndax son suñ dëkkub Serigne Moussa bi di cele lépp lu fa xeetoot di màggal muy gàmm nu mu ko daan defee Touba na la ko fa daan defe di yónnee yëpp moom mot ak leneen ak leneen kon suñu xol set na ci moom ñu ngi koy ñaanal ah, ci turu Serigne Mbacke ñu mi nga xam si mooy xalifab Serigne Moussa yar na ko yàlla suñu borom taaru fa mu jëm amiin mel ni bala nga wàcc kàddu yi jëwriñ ji wax na ko léegi bis bi jàngat la ci mboolem jullit yi rawatina taalibe yi nga xam ne dañuy liggéey Serigne Touba bi moom jàngat la ci mboolem jullit yi rawatina taalibe yi liggéey Serigne Touba moom la naan ku def lu rëy am lu rëy liggéey rek moom solo képp ku liggéey di nga am lu rëy te lii nag saayir bi la rek baatin bi ñëw ko sëñ aatu lii saayir bi la rek sunu xel dal na ci baax a baax a baax am nañ yaqin ni sëriñ Tuubaa bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati naalu bi qafi rasuli almustafa rutaban salla alayhi alladi yuti almadiyati نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه منه ثلاث كل ذاعاته من المناخب ما لا يحتوي خلم ولا لسان بخط أو حكاية ginnaaw bi ñu ko ñaanalee euh, sëriñ bi teeru ko teral ko jël ko teg ko ci loxoy yonent bi salaa salaam teg ko ci loxoy suñu borom subhaanahu wa taala xol yi moo fees moo tax mu ne su la wax lu bari waaye xel daa dal ci moom ndax ku ko xamul it dégg nga ko waaw muy jàmbaari sëñ Tuubaa joo xamante ni jëf rek ak liggéey lañ ko xamee waxuma la li gën a dalal nag suñu xel ñun mooy waxuma la moom waaye ay millions yi millions yi ci aatu la defar ci daara ji ñun ndaw ñi xam nañ ci dara ndax bi ñuy nekk xale la ñu suñu waajur indi ci daara ji euh, ba léegi ñu ngi ci biir daara ji ak suñuy morom ñi nga gis ñëpp waaye wax dëgg yàlla pas-pas bi mu def ci ñun mooy jullit àqan murit saadix ku nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla lépp loo am ak lu mën a doon delluwaat lépp sëriñ Tuubaa lii wane na ko mi boo xoolee kuréel yaa ngi jàng

wa annahum afsaqul fusaaqi kullihim wa annahum lam yaliqu bil ijaabati minha talaasumu sabrin lil ilaahi ala jawri al uzaati jamiican wal musiibaati kaanuu izaa naabahum min nahwihim dararun taabuu ilallaahi min kusri al xatii'aati wa min manaqibihim ridwanu rabbihim alayhim dahra huznun kulla zaati wa min sajaayahum xawfu nifaaqi bada xawfu alfuduxaati fi awli alqiyaamati wasjud wassud min atawaadu lilqahaari malikihim wassidqu waszuhdu ma tadhiri afaati منها التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنهاء شكاياته العلم سيمتهم والحلم ngir jëmbi sëñ Tuubaa nga xam ne koo xamante ne doomi sëñ Tuubaa ñëw ba ci yow daal ni bu dee jaay nañ ma ko jaay bu dee yàlwaan yàlwaat naa ko bu dee bu ñuy mayee ñaan naa ko waajur bu jël ko jox ko si loolu tawfeex mënut weesu loolu méttee ba murid gi méttee ba métti mi 1976 ku ne gis na nataal yi ci euh, Ndakaaru bon la taxawoon nga xam ne boobu complexe woon na waaye daan sol ay baylaat di takk euh, rangoo jees ji sol mbaxana doon murid sadiqub sëñ Tuubaa sëñ na ko belal mu ñëw mu ko fa ci néeg bee butéel ba fa ne nga ne mu jël butéel ba moom dong naan ko bëgg ko kenn fanaan naan ba ci ci néeg bee bu dee loo fa ne nga ne ko sacc naan muy ñaari fan te suba suba defaat ko ba muy ñetti yoon nga xamante ne moom sampu sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad loo ci di dégg tali bi sëñ Tuubaa la bu doon liggéey sëñ a te xaside yi moom ci la sëriñ bi nekk sëñ mu taa wax nañu ko ba tàyyi te bari na foo gis ci adduna bi nit kuy sol baylaat boo gisee sa xel dem ci sëñ Abdou Lahad ak Atou mooy Hizbut Tarqiyyah fu ad fu adduna bi nekk rek sëñ Atou samp na fa ay kuréel ne ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa ci xasida kon loolu taw feex mënutee ñi ñaan ci doole xasida yàlla na ko barke xasida walloo te it ku fi teew yàlla na sëñ Tuubaa sa bàkkaar yëpp ci kàttan mu subhaanahu wa taala ñëpp waaw xasida rek mooy xasida rek ndax lu lu mu am xasida ko may dara mayu ko ko lu mu am xasida ko may sëñ Muntaxa ne tawfeex gi mu am lépp xasida ko may kon ñun nañ nañ gën a lépp rek xam naa ne xam ne rek murid saarix bàyyi ko na fi koo xam ne ku bëgg xasayit sëñ Tuubaa yi ku fonk ndigalal sëñ Tuubaa ku yàggawee ci ndigalal sëñ Tuubaa waaw ñu ngi ñaan daal yàlla taas ci barkeem waaw ci barke borom Tuubaa te yàlla dolli ko ay leer fa mu jëm barke borom Touba waaw kenn ku nekk war ngaa eh, jàng jàngataat sa bopp nag ci gën a fonk lu baax gën a fonk xasida yi gën eh, sëñ Touba bu baax gën a moo jëg taalibe fi daarayni xudwatihim salaatu raadin daahum lil mulaaqaati على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل على المشفع يوم الحذر في الكرماء فلا تشاف شفاه من دزيزاته على الذي فضله لا ينتهي أبدا فلا تهاد هداهم لاستقامات على المكرم غير الغلق كلهم صلاة مغن جزاهم غير غيراته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 buñ ko nattee ba noppi loolu lañ lay jox doo ci soppi virgule donc képp ku am entreprise tey tey entreprise bu am am crédit bu ko defaree nii lay mel mënut a def mënut a def ba def lu weesu